taxawaay bi ñu fiy def nag mooy kii Modou Ndiaye mi bokk na ñi def formation bi peut-être temps moo ko mayul muy dem ISEP pour def formation bi am na ñeneen tanit ni nekk mooy karamaram comme Mamalaay am na tamit Souley Diallo ak ñeneen yaakaar naa ne tey ñoom bu ñu génnee ci formation ISEP boobu man mi tamit ci alimentaire bi si laa bokk ñuy def transformation céréale bi am te ñeneen tamit ñuy jël ñuy waaj a pour ñu def élevage yaakaar naa ne boo amee réseau boobu say doom nekk ci dëkk boobu waroon noo mën a jàppale ndaw yi fi nekk wala seen yaay wala kii ba mën loolu xaw ba xam-xam boobu ñeen ñi mën koo jëriñoo ba mën a jëriñ ñeneen loolu moo nekk suñu bii aussi tamit am na yeneen partenariat pour côté agriculture bi si wàllu semence beeg yooyu ñu mën fee jàppale tamit agriculture parce que mënoo def transformation sans waxu agriculture mënta nekk loolu mooy nekk suñu yite aussi lépp loo xamante ni développement la si cadre de santé bi parce que tey mënoo ñëw ni cadre de santé fii lan toog mais melukaan bi tey yaakaar naa ne te nit ñi nekk si dëkk bi entretien war na ko def parce que équipement yi yàquwul suñu waxantee dëgg mais entretien moo amul ndaw yi du ko gën a ñaax ndaw yi mu ñu xam ne am nañ association parce que association sa dëkk loolu xool loo xamante ni tey war nañ see mën a jàpp parce que nekku ni góone kese mooy def nekku ni te nit euh, man kese maay def mais mbooloo moom mooy defandoo dara pour ñu am réussite parce que tey bu association bi xëyoon benn journée nettoyé dem jënd ay garab fleur ñëw def ko day nekk loo xamante ni day taaral case de santé bi tey nit ki bu fi ñëwee wala yéen am benn partenariat mais tey bu partenariat bi ñëwoon tey bu leen a jaaxle si case de santé bi day découragé parce que tax muy découragé naan ñii seen matériel yaa ni def amul entretien même boo joxaatee matériel tax entretien bi far du ko def sa net nit ki ban laa jàppale day fekk na jàppale sa bopp ñun nag loolu moo nekk tey suñu initiative parce que nekku ni dëkk yi kese lañuy dem mais bëgg na noo dem au tout la région de Thiès pour initiative bi nu am pour daal ko fay def moo tax bu ñu ñëwee ñu waxal avec les têtes de liste mooy regroupement yi comme ni ñu waxee ak yow yow mi nekk fii ak ni nekk caale ak ni nekk ci pour nu mën a toog waxtaan ak ñoom pour xamal ne kat suñu initiative lii la lii mooy suñu bii te bu ñu sañoon te ni aussi day nekk loo xamante ni lu wéy la du nekk loo xamante ni benn passe-temps la ñëw jaar romb loolu moo nekk suñu bii te tamit bëgg neen fee gën a taxaw tamit gën fee jàpp ba jàppale leen parce que amuñu kenn ku lu yéen parce que mënoon ni ji yaay yaay moo jur lépp te lu waaye mën a nekk say waajur la moo tax aussi ni jëlaat loolu pour ñëw delloo leen école boobu di jéggaluwaat si kàddu gi pour jox suñu initiative bi moom Mouhamed mu wax ci côté transformation céréale parce que lan mooy transformation céréale aussi yan anam la nga koy defee mu gën a sensibiliser leen gën a waxtaan ak yéen pour mu pare daal jox suñu tamit partenariat bi Thioro aussi tamit mu wax tamit aussi la mooy initiative aussi tamit lan la ñuy pare pour accompagner leen si yeneen anam yi ak formation yi ñu war a war a def.